turam ak santam di jiital ci nuyoo bi suñu sëriñ suñu kilifa muy alaaji Malick Sy Dabakh ah, man su ma suñu kilifa suñu wéyjur suñu sëriñ beaucoup de gens comprennent pourquoi moo tax ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar ci turu délégation wu Yewwi Askan Wi Yewwi Askan Wi ni mu ko yàgg a defee dafa ñëw tey pour euh, mottali si parce que fi nga bokk lépp loo fa def rek loo war def la ñu ànd ak euh, président Ousmane Sonko ànd ak président Cheikh Tidiane Dieye ànd ak président Déthié ànd ak présidente Aïda Aïssatou Mbodj ànd ak euh, suñu député yi ak maire yi parce que ñëpp ngi fi tous les élus du département de Tivaouane que ce soit les maires les députés les conseillers les adjoints au maire ñëpp ñu ngi fi tey ànd télé doxtu wareef la donc euh, sëñ Maodo say taalibe say rak say doom say jarbaat say mbokk bokk ak yow tarixe bi ñoo ñëw tey di la ziar wax ji du gudd parce que xalifa wax nañu ko léegi Euh, jamono moo ko mayeetul moo tax tànk yi moom tànku ziyaar la la wax la ni la xam nañ bi nga doon xam nga fi nga féete xam nañ na nga taxawee ba tax na wax si seet si la fii day met ni dañuy seet si sa waajur wu sell wa sa ñabdu parce que na mu daan waxee na mu daan tooge na mu daan jëfe rek nga tànk yooyu nga topp yal na yàlla dëgëral say yos fëgg sa bopp dëgëral tànk yi ba foofu nga tegu yàlla yàggal la fa parce que nag sa nekkum fii dafa am njëriñ pour ñun sa parole dafa raar mais saa yoo waxee rek lu jëriñ askan wi la parce que nag yow à part léegu say wayjur yi ci adduna bi nitu defar nga nit kuy rassembler nga nit kuy dëggu nga donc suñu ñu ñëwee fii tey dañ lay rendre omage boobu ngir loolu mais di wax aussi nga jottali ñu suñu nuyoo ak suñu ziar suñu wayjur suñu sëriñ sëñ Babacar Sy Mansour xalif général di ko nuyu di ko ziar di ñaan yàlla fëgg bopp bi dëgëral tànk yi mu jiitu ba ci kanam kanam dëgg yàlla ñun ñëpp ñoo ngi ànd di ko ñaanal di féliciter nag famille bi yëpp parce que gàmmu moment la boo xam ni dañuy màggal gën ji mbindéef suñ ca tolloo nag xol yu rafet xel yu dal ànd gu wóor ak jekkal rek moo fi war moo tax loolu mooy suñu taxawaay fii tey que ñuy wax ni yow na ñu jottaleel ci suñu wayjur suñu kilifa ni ko yeewi askan wi projet la mais àndu gor la ak i nawle yoo xam ne réew mi leen ñor jàmm réew mi moo leen yor jàmmi askan wi moo leen ñor et lépp loo xam ne jàmm la ñu nga ca lépp loo xam day defar askan week dëkk bi ñu nga ca wax ko ni ko ay taalibeem ak ay doomam ñooy dalal xelam ni ko du ñuy nitu fitna du ñuy nitu problème mais nu sommes des citoyens et des yoo xam ne réew mi rek moo ñu ñor dañ bëggoon wax loolu aussi ñëpp yóbbaale ko parce que tey soo demee di wax ci gën ci ñun da nga cay wax la nga xam ne mooy sa waañ mooy jéem a roy jéem a topp jéem a mel ni nga xam ne ñi gën ñi baax loolu lañ nekke en tout cas ñu ngi lay ñaanal ñu ngi lay sant yal na yàlla fëgg bopp bi dëgëral tànk yi ziyaar boobu rek lañ noon def di gërëm di sant nag parce que bañ mujjee gisee ñu jublu woon fa ñu jublu ñaanaloon nga ñu yal na la ko yàlla fay parce que ñaan gi gis nañu njëriñ merci beaucoup ma nuyu nag sama rakk suma xarit muy Mamadou Ibra Kane kii nag sama jigéen bu yàgg la Aïssatou Fall képp ku xam papaam c'est c'est la fille de Alioune Fall donc son père était l'un des plus grands journalistes de ce pays et elle a été pendant longtemps à la francophonie day soog a ñëw donc euh, jërëjëf si di yal na yàlla fay dëgëral tànk merci beaucoup sallallahu wa sallam ala nabiyyil karim sayyidina Muhammad ibn Abdillah làmmiñ fasu na xel gëlëm na waaw sëriñ bi dafa wax ne ginnaaw bu mu leen nuyoo ba noppi xel làmmiñ dafa fasu xel itam dafa gëlëm ndax barke sang bi rek loolu nag li ko waral mooy barke sang bu tedd bi sayduna muhammad alayhi salaatu wa salaam ah mu nga ca bat sax waaye mu ngi béggee àdduna bi yëpp ci. ni ñu koy rendre hommage. nee na sang bu tedd bi tey ba nga ca bar sax xam tëdd. waaye mi ngi bëggee àdduna bi yëpp ci niñ koy rendre hommage. foo dem nee na foo dem tey ci goxi àdduna yi. turam ngay turam rek ngay dégg. ay jalooreem la ñuy waxtaane ay jalooreem la ñuy waxtaane. jikkoom la ñuy ñuy bëggee di ko jéem a moom la ñuy bëggee di ko jéem a roy kemtalaayal kàttan. sallallahu alayhi wa sallam. wa sallam. yonent bi kenn du moom. nee na sallallahu alayhi wa kenn du moom. mi ngi ci suñu biir de. nee na nañu gëm ne mi ngi ci suñu biir. nee na mi ngi koy giñ ci màggu yàlla. amul werante. nee na loolu amul benn werante. yonent bi ci ci waxin. nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci waxin. mooy yàlla. nee na moo di yàlla. donte la yàlla yàlla yàllaam nga wéete na ko. donte yàlla moom jëmm la joo xam ne wéete na yàllaam nga. seen maam Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu. nee na suñu maam Cheikh Seydou anhu. moo daan wax ne yàlla. moo daan wax ne yàlla. soxlaalul yàlla dara. soxlaalul yàlla dara. Allahu. ah nee na yàlla. ganiyun bi nafsihi an nafsihi. dee na maanaam da yàlla jëmm ji daal doyloo na boppam ba soxlaalul yàlla dara ci waxin. macha allah macha allah. xalifa jërëjëf. xalifa sëriñ bi nee na jërëjëf. nee allahu ngi leen di nee na mi ngi leen di bége. kan. jërëjëf léegi la koy tooñ di ko déy. nee na di ko wax ne ko yow sama goro nga. jëkk ngay nekk sama goro dama la yàgg a sopp. ngay doxale journalisme. ndax ni ngay doxale journalisme. rafet yi ngay wax. ak waxin yu rafet yi ngay wax. ak mu ne ko sa dicton ak sa français nag. mu ne ko sa dicton ak sa français nag. dafay sori sama xol. dafay sori ci sama xol. muy ku yiw di ku baax. leen di jaal suñu rakk jooju génn nee na mi ngi leen di jaal mbokk mu tedd moomu génn àdduna bu yàggul. ci accident. ci accident. Euh, ma Samba ñu ngi koy ñu ngi koy jaal Alsan Samba nee na mu mi ngi ko koy jaale bu baax a baax. di ko jaal bokki waalo yëpp. tabaarakallahu tabaarakallahu euh, maa ngi nuyu. nee na mi ngi nuyu. sama soppi bii di Khalifa Sall. soppeem bii di Khalifa Sall. di ku baax. di ku yiw. di ku yiw. suñu goro la. nee na suñu goro la. ndax moo njëkk denc. ndax moo njëkk a denc. suñu rakk. suñu rakk. Fàtsi Mouhamadul Habib. bu ñuy wax Fàtsi di doomu Cheikh Al Hadj Mouhamadul Habib. Cheikh Al Hadj Mouhamadul Habib di caatu maam El Hadj Malick. Cheikh Al Hadj Mouhamadul Habib mooy caatu maam Cheikh Al Hadj Malick. macha allah. macha allah. taaw biñ ci am. nee na taaw biñ ci am. Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Dabakh lañ ko tuddee. ñu tuddee ko Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Dabakh. ngi nuyu bu baax a baax. nee na mi ngi nuyu bu baax a baax a baax. doomam. Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. di ko dalal jàmm. di ko dalal jàmm. di ko sargal. di ko sargal. di ko ndokkeel ak ñëpp. di ko ndokkeel ak ñi mu àndal ñëpp. ñi mu àndal ëpp na lii. fii mu nekk ay milliards yi milliards yi milliards yi milliards ñoo daje ci àdduna bi. nee na fi ñuy wax nii de ay milliards yi milliards yi milliards ñoo daje ci àdduna bi. ndax individu boo tudd. ndax nee na benn nit boo tudd. mooy ñooña ñëpp. mooy ñooña ñëpp nag. kon lim ba. kon lim ba. deesu ko xam. kenn mënu koo xam. ku dul yàlla ku dul suñu borom subxanahu wa taala. bés bi bésu taxe la incha allah. nee na bis bii bisu taxe la incha allah. bisu faju aajo la incha allah. nee na bisu faju aajo la incha allah. Euh, mi ngi nuyu itam. mi ngi nuyu itam. Déthié Fall. Déthié Fall. ak mbokk yi ñu bokk àndal ñoom ñëpp. ak délégation bi ñu àndal ñoom ñëpp. ñoom yewwi askan wi. ñoom wi askan wi. macha allah macha allah. Euh, politique. nee na politique. mënul mënul ñàkk ci àdduna. waaye rek ko seq di ko def. waaye daal ña ko seq di ko def. nañu bàyyi yéen te xel. nañu bàyyi yéen te xel. rawatina yàlla mi ñu tiim. rawatina nag yàlla mi ñu tiim. te yàlla na yeex yàlla na yéex. te yàlla na yéex yàlla na yéex. dañ ji ñun ñii ñëpp dañ fiy jóge ci ñeneen nekk. ñeneen nekk fi. ñooñee dem. ñooñee dem. beneen génération ñëw. mas naa waxtaan ak seen seen maam Abdou. nee na mas na waxtaan ak seen maam Alxaaji Abdoul Si. ca Dakar ca Dakar. mu ne ma mu ne ko Xaj Malick. yàlla rek ay yàlla. yàlla rek ay yàlla. mu ne ma xoolal rek. mu ne ko xoolal rek. Medina gii ñu dëkk. Medina gii ñu dëkk. ak ñi fi dëkk ñëpp. ak ñi fi dëkk ñëpp. ak li dëkkee Dakar. ak li dëkkee Dakar. ak yi. ak banlieue yi. ak région yi. ak région yi. mel na ne. mel na ne. bii. adduna bii. yàlla rek a xam fu muy yem. yàlla rek a xam fan lay yem. waaye xam nga Maodo. waaye bu ne ko xam nga Maodo. ne adduna bii. ne adduna bi mën na fi desaat. man na fi desaat. un million million d'années. lu ko ëpp sax lu ko ëpp sax. ndax yàlla boppam la xam. ndax yàlla moom boppam la xam. kot kot. dong dong. keneen ku ko génn. keneen ku génn yàlla. mbindeef nga mbindeef nga yàlla rek kay yàlla keneen ku dul yàlla mbindaafoon nga. subhaanahu wa taala. waaw waaw tudd na ma sellam gu kawe ga moom suñu borom. di leen ñaanal nag. sëriñ bi nee na mi ngi leen di ñaanal. di bëgge tànk yi. di bëgge tànk yi ngeen dox. ñëpp leen dégg. na ñëpp leen dégg. seen yëngu. ci seeni i yëngatu. ñu bari bàyyi nañu leen xel. ñu bari bàyyi nañ leen xel. macha allah macha allah. loolu nag doon loo xam ne. loolu nag doon loo xam ne. yan la boo xam ne. yan la boo xam ne. nañu bàyyi yàlla rek mu yenu ko. nañu bàyyi yàlla rek mu yanu ko. xam lam cay doxal. xam lam cay doxal. xam lam la namm namm. xam la cay namm nammam. ñun daal li ñu soxal. neena ñun daal li ñu soxal. gannaaw yàlla. gannaaw yàlla. mooy jàmm réew mi. mooy jàmmi réew mi. rekk rek du leneen. te réew mi réew mi. te réew mi réew mi. nit ñi nit ñi. nit ñi mooy ñun ñii. ak ñeneen ñu dul ñii. ba Sénégal daj. moo tax kuy jox sa bopp. moo tax kuy jox sa bopp. mu mën a doon ku mu mën a doon. jox ko yàlla rek. cheikhul xalifa suñu baay bu baax ba. nee na cheikhul xalifa suñu baay bu baax ba. nee na kuy kuy yal yàlla taas ci barkeem yal nañu yàlla taas ci barkeem. kuy wéeru. kuy wéeru. day seeti. day seeti. ginnaaw ginnaaw. borom dayo ya borom dayo ya. wax bu rëy la. wax bu rëy la. maa ngi nuyu. mi ngi nuyu. sama jigéen. jigéenam. xaritam. Adja ay Mbodj. Adja Ayda Mbodj. ñoo bokki maam ca waalo. ñoo bokki maam ca waalo. ku baax la ay Aïda ku baax la. dafa am bi mu nekkee ak Ablaye Wade. bi mu nekkee ak président Ablaye Wade. dafa am soxla bu mu am ci moom. dafa am soxla bu mu am ci moom. yàlla dogal. yàlla dogal. ma téléphoné ko. mu téléphoné ko. bëgg ko. ñaan mu recevoir ma bëgg ko ñaan mu recevoiral ko ñaar ñooñu. mu ne ko ii. Serigne Maodo yaay sama mag. yow yaay sama mag. yaay sama eh, kilifa. sama càmmiñ. maa ngi ñëw léegi maa ngi ñëw léegi. noonu la bàyyee bureau. noonu ñëw. ci saase. ñu waxtaan. la ñu waxtaane la ñu waxtaane ñu ko doon sàkku ñu ko doon sàkku mu ne bis ni ki tey mu ne bis ni ki tey bu soobee yàlla bu soobee yàlla bu soobee yàlla soobee yàlla yéwén na yéwén na moom moom yaayam yaayam dafa nekk doomu Alaaji Mansour dafa nekk doom ci Cheikh Alhaaji Mouhamadul Mansour ayda ayda mi ayda mi bi ku bi ku bi xam. di ku Cheikh Alxaaji Mouhamadul Mansour xam. boobu nag xale la. boobu nag ndaw la. ndax man som pap Mansour nelaw. ndax nee na bi Cheikh Alxaaji Mansour papaam di nelaw. ndaw la nee na boobu ndaw la. 15 ans la boobu fukki at ak juróom ci la toll. ak Pape ak way juróom Cheikh xalifa Khalifa. waaye dañ waaye ñaari way juróom yooyu dañ ko bëggoon lool. ñaanal nañ ma wax nañu ci man. ñaanal nañ ko wax nañ ci moom. ci mbaaxu ci mbaaxu yàlla. yal na yàlla wéyal. yal na yàlla wéyal. te muy njariñal ñëpp rek. incha ñëpp nag. ci baaxu yàlla. léegi nag léegi nag. daje bi ngeen fi daje. léegi nag léegi nag. daje bi ngeen bi ngeen fi daje. mbiru yàlla la. nee na lii de mbiru yàlla la. mi ngi koy giñ ci yàlla. ndax tam. du lu ngeen xamoon démb bi ngeen di waaj na ñëw Tiwaawan. nee na li daje bii daanaka kenn xamu ko woon démb bi ngeen di waaj na da ngeen ñëw Tiwaawan. waaye nii la ko yàlla dogale. yal na yàlla di def dogalam yëpp. di def dogalam yëpp. mu dëppoog li nga xam ne. mu li nga xam ne. moom la jaamu yàlla yi soxla. moom la jaamu yàlla yi soxla. ci ci réew mi. ci ci ci réew mi. ci bennoo. ci bennoo. ci juboo. ci ci jaar ci yoon. te te jaar ci yoon. ci dara ci daraja yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. maa ngi nuyu bu baax a baax. nee na mi ngi nuyu bu baax a baax Cheikh Ahmed tijaan Dieye. ñun ñëpp ay mbokk lañu. nee na daal fii ay mbokk yi nee na fi daje. maa ngi fàttaliku soxna ay di Ayda ay Ayda Mbodj mi fekke na ko. nee na soxna Ayda Mbodj li muy fàttali ko moom fekke na ko. kenn ci kilifa yi sàkku ci man. joxe ay kaddu. kenn ci kilifa yi sàkku ci moom mu joxe ay kaddu. ñu di ko def ci kaw. ñu ko doon def ci kaw. soxna Ayda yegg si fa. soxna Aydi ak soxna Ayda Mbodj ak si fa. dajeeg mu tomb mu toll ci waxtaan. dajeeg mu toll ci waxtaan. ma ne. sëriñ bi wax ne. boobu Wade nga ca Paris. boobu Abdoulaye président Wade ma nga ca Paris. ñu ngi nuyu. ñu ngi nuyu. di ndokkeel. di ndokkeel. Abdoulaye lay Abdoulaye Wade. ci bisu gàmmu gii. ci bisu gàmmu gi ndax kat ndax kat. bokkul ci ngor bokkul ci ngor. bokkul ci diine bokkul ci diine. bokkul ci reconnaissance bokkul ci reconnaissance. Ablaye Wade Ablaye Wade. bis bii mu fi daan ñëw. bis bii mu fi daan ñëw. wala muy dem kër Serigne Abdoul Aziz Al Amin. di fa wala muy dem ca kër Serigne Abdoul Aziz Al di fa añee. ànd ak premier ministre ànd ak premier ministre am. ak i soppeem. bis bi ñëw ñu mel ne xamuñu ñu mel ne mosuñoo xam. Wade man Maodo dama koy tudd. man day Serigne Maodo dama koy tudd. monsieur le président Wade. foo nekk foo nekk. nuyoo Tiwaawoon ak. mi ngi noonu. ci sa loxo ci sa loxo. jóge ci kilifa yi jóge ci kilifa yi. jaar ci seen làmmiñu rek seen làmmiñu rek. seen taalibe seen taalibe. Euh, macha allah. macha ñun daal fàtte wuñ la. sëriñ bi daal ne ko fàtte la. daal ma ñu fàtte. ne ko ñun daal ma soo ñu fàtte. ba jóge fi dem ci xalifa bu tedd bii tey. dem ci xalifa bu tedd bii tey. ci kër maamam. kër maamam. gu mag kër gu mag. di ko ziyaara. di ko ngi toog di waxtaan mi ngi toog di waxtaan. mu ngi jaaxaan mi ngi jaaxaan. tuuti tuuti. ay dëmbooj yegsi. ay dëmbooj agsi. fekk kat maa ngi nettali sëriñ bi ni ma waxee. fekk mi ngi nettali sëriñ Babacar ni mu waxee. ayda di dugg si. ayda di dugg si. mu ne naa yëkkati sama baat ba Ayda xam ne ba da xam ne. Serigne Mbaye xam ne Serigne Mbaye xam ne. Serigne Babacar si Serigne Babacar si Mansour xam ne. sama Serigne Serignam. jàngal na ma alquran jàngal na ko alquran. yar na ma yar na ko. sopp na ma sopp na ko. bëgg na ko lool Serigne Mbaye Mansour. Serigne Mbaye Mansour. kenn la kenn la. ci dëggoom ci dëggoom. ci takkoom ci takkoom. ci dogoom ci dogoom. ak bëggam yàlla. amul tiitukaay amul tiitukaay. waaye am na sago waaye am na sago nag. am na xel am na xel. léegi fii ñu nii léegi fii ñu toll nii. nit ku nekk ak na nga gisee. nit ku nekk ak na nga gisee. waaye ku xam la nga wax. waaye ku xam. ku xam la nga wax. ku xam la nga wax. xam fam la bawoo. xam fan la bawoo. mën nga dalal sa xel. mën nga dalal sa xel. te wettali ko te wettali ko ko. sëñ Babacar Mansour sëñ Babacar Mansour fi mu ne. mu ngi yéeg ci ay martaba di dem ca kaw mi ngi yéeg ci ay martaba di dem ca kaw. wallaahi koy giñ ci màggu yàlla espèce su yaram wu sutante wii sax. nee na yaram wu sutante wii sax. yooyee ca la nee na yéeg yooyee ca la bokk. dañu ne. ndax dañu ne. duñu la ko jox. duñu la ko jox mukk. fi woo njëg fii joxe woo njëg gi. ñun ñëpp nañ ko ñaanal. ñun ñëpp nañ ko ñaanal. moom la ñu am de. moom lañu am de. moom la ñu am de. Tiwaawoon wéet na. waaye nag. waaye nag. alhamdulilah alhamdulilah. du du du wéet nee na wéetaay gi demewul noonu de. ndax njaboot gaa ngi fi. ndax njaboot gaa ngi fi. waaye daal moom. waaye daal moom. sumbu maamam bii la. sumbu maamam bii. yàlla na ko yàlla yàlla na ko ko yàlla mottali. may ñaan ci képp kenn ni ko ngi ñaan ci ni ko Serigne Babacar Sall waxee léegi mi ngi ñaan ñëpp. ñu ñaanal Serigne Babacar nañuy ñaanal Serigne Babacar Mansour. ñun amuñu ku dul moom ñun amuñu ku dul moom. mooy suñu mag. mooy suñu mag. mooy xalifa maamam. mooy xalifa maamam. mooy xalifa cheikh. mooy xalifa cheikh. ci wàll yëpp. ci wàll yëpp. maa ngi fàttaliku. mi ngi fàttaliku. dans les années cinquante deux cinquante trois ci année cinquante deux cinquante trois. bi ko sama maam sama pap Mansour. ko papam Cheikh Al Hadj Mansour. ko yebal ne ko mbay. di ko yebal ne ko mbay. demal ci sa maam ci Nourou Tall sa maam Thierno Saïdou Nourou mu jox la mu jox la. wirdu salaatul wirdu salaatul mooy mooy sa sëriñ. mooy sa sëriñ. loolu yàgg nee na loolu yàgg na. boobu maam Seydou Nour mi ngi dëkk rue Blanchot. booba boobu maam Thierno Saïdou Nour mi ngi dëkk rue Blanchot. kër gu rëy. kër gu rëy. soxnaam su baax sa yaay Gogo Keita na soxnaam su baax sa yaay Gogo Keita nekk fa. macha allah macha allah. mbokk yi mbokk yi. kontaan nañu. sëriñ bi nee na kontaan nañu. Ayda jërëjëf Mbodj Ayda jërëjëf Mbodj. Ayda Ayda jërëjëf Mbodj jërëjëf Mbodj. duñu leen fàtte. duñu leen fàtte. ci sunuy ñaan duñu leen bàyyi. ci sunuy ñaan ndax nit amul. ndax nit amul. lu dul mbokkam lu dul mbokkam. yéenay suñuy mbokk te yéenay suñuy mbokk. ñu doon ko ci yéen ñu doon ko ci yéen. far di mbokk ñëpp. far nag di mbokk ñëpp. ñëpp di suñuy mbokk ñëpp di suñuy mbokk.